yaayam sama rakk la yaayam sama rakk la sama ko jur may ma ko bi amee ñaari at maa ko yore ci daal dëgg yàlla man xawma ku jëf xadi daal tëdd na samedi ci guddi nee nañu woo si ko fa ma di ko wër ba asamaan set mu feeñ doonum néew nee ñu dala xel la feeñe ci miir dala xel ba gisuma ko man dew ma ci dew ma ci mais xale yi am nañu ca demoon man dew ma ci rumeur yi ngeen ci dégg nag man maa ngi yéen ci bokk yam man rumeur bi diggante alxames ba àjjuma laa ko xam. sama waxtaan samay kilifa. awa mu ndaw moo ma wax awa mu ndaw moo ma. awa njaay xat dafa ëmb ma yuuxu ba dëkk bépp daje awa mu ndaw ni ma doo def nii boo defee nii danga koy jaaxal dañ koo nax boo defee nii dañ koy danga koy jaaxal ndax dañ koo nax ma ne ko góombal mun ma doomi sëñ Moussa Fall ne ko ay. ay ay doomu sëñ Moussa Fall ji rey na ma ma faaw nga dal aw ne ma dem naa fa man maa ànd ak xadi bu ko xadi yóbbul kayitu ordonnance bi éco bi ko waa hôpital bi jox maa ànd ak moom ba dem fekk ko mu toog ma woo ko ne ko sëñ bi man ma ko xadi Juuf mu loolu nangu ko ko soxna xadi xadi te ordonnance yi jox ko mu ne ko ak sutura mu yóbbu asamaan set xale ya dem fa mu jox leen mu discuter xale yi man mu discuter xale yi dëgg yàlla man xaw ma ko parce que moom xaw ma ko benn yoon laa ko mës a gis xale yi dem discuter moom mu yëkkati 10 000 jox leen xale yi ñëw yëkkati 10 000 jox ma ne man duma ko laal parce sama doom ji fukkat ak ñeent la am fukkat ak ñeent duma dem jàkkaarloo moom ñu koy xool ma xam ne xam na àdduna ba ma lu ba tey ma boolewaat ko awa mu ndaw rek awa yóbbul ma ko hôpital mu def test bi nekk ëmb bu ndaw. yàgg bi nag taxul mu yàgg noonu parce que bu matee sax bu dee mat na weer ci la yem parce que dafa tiit ci boppam rek signalé ko affaire xale. ma tëdd nag mënatuma dara sama yaram yëpp bàyyeeku ma tëdd jàpp sama jàmm dara mais bi ma ko yóbboo ba ñu def écho bi yëpp bi ma ko yóbboo ba ñu seet ko xamal ne ma ëmb la ma ne nag dem ci ay waajuram jot na ndax ginnaaw naa ci lu ma leer dem ci ay waajuram jot na bu dee dama am ay kilifa ma waxtaan ak sama ay kilifa. doy ba bàjjen ci laa njëkk a woo mun ma nekkal ba ma ñëwoon waxtaan ci dama yor malaat ma téléphone mais seel mais mon ma dalal nit day dal da nga uppal fa mu dal ciow dem fa ngay def dank ba awu mbub ñëw ma and ak ñoom ñu dem ginaa sama kilifa la wax ma lool ma d'accord ñu ci sama yaay wax ko lool mu wax ma lool ma d'accord ma tok tok tok deglu ma deggu ma ñu wax dara ma affaire bi mënatuma ko xaar parce que bu mako ko sa xalé bu mën naa bañ legi damay dem legi ma dem sama rak bu jigen bi ne ko nan dem nga gunge ma ma ne leen na bëggul len ma jàmm parce que luma ma di xaar rek muy gënd di yàgg noonu nag laa wàññi ko dal di ñu ci kër gi ba may dem avant may dem jox naa ko 700 mu jënd ci rër jënd ci sama yaay rër tudd ci sama ginnaw yaay bima ma demee ma retourné it ñëwaat na fekk ci sama ginnaw yaay mu tudd depuis àllarba mun ma jallal ndox bima ma yëgee affaire ëmb ba légui mun maa lekk mun ma ma dal di jënd ci may bi lekk toog ci néeg bi di ko lekk ba ci yàgg fàllu nga mu ngi ci buntu kër gi taxaw ma dégg fa fàllu na ma yaay ma dégg fàllu am koy waxam ci mi naa ko fàllu seen waa kër de Juuf la ñuy wër fàllu daal ni ma fàllu dina Xadi Juuf Juuf ko fàllu ni ma yaay Xadi ñàkk jom Xadi dama ko seeti waaye ma ne duma ko seeti tibb dagg ci mbur mi ma doon lekk seex mel dañoo jàpp sama fii ma jug daal dugg mbuubeen laaj xale yi ñu ne ma xadi fii la nekkoon léegi demoon na ba bay bëgg tëdd ginnaaw bi nag la am ku dugg ci kër gi woo ko ab xale bu góor bu dugg ci kër gi woo ko mu ànd xale bu góor bi génn ba ñu jaar ci yoonu raay bi man ne ko yoonu raay man a ko yeneen xale yi ci des ñoom it ñu jógee ruq Baay Faal doon ko fa seeti ma dajee ak ñoom ci raay bi man leen da ngeen koo gis ñu ne ma déedéet man leen kon baax na man kon baax na kon xadi nekku fa xale yi netti ma xale bu góor bi ko fi woosee ci kër gi ci weñ gee la taxawoon ak moom la jaar moom ci yoonu raay bi ma daal di dem ruq baay faal jot na ay deux heures ci guddi ma dem ruq baay faal fekk ñetti xale yu góor ñu taxaw ci angle bi man leen ma laaj leen turu sëñ bi ñu ne ban sëñ man leen ki da wala sëñ Moussa Fall xaw ma trop mosuma ko gis ñun ma sëñ bi tëdd na te ñun duñ ko yee man leen man wax leen ma fu nekk man ma yee ko xale yi discuter ma waaxu wuti ca kër ga ñu doog ma ne kër gee ca kesk ba la dëkk ma daal di jubal dem yee ko ma naka la génn daal di may teg loxoom ñun soxna si dalal Dede, nama ma soxna ci dalam natou bepp ci sama kaw la tege ko man na yalla teg nat nangu nako ko man na yàlla nat ko amul ma nangu nako ko ci bu ci même goudi ki amul ben problème nangu nako ko ma ko ah sëñ bi ma ne ko nangu ko de way togn nga ma fan ba ko beugé nga ñu ci man ñaan ko kon ma jox ko addiyee sa addiyee mam ma gën nga yak sama doon jini nii wax dëgg yàlla man wala loolu lépp day soxna ci nattu la wax ci kaw mun ma ay soxna si sutural kilifa laa te xoola ñu taxaw sa ginnaaw ma ne ko tey yóbbu woon naa ko hôpital damaa bëggoon a sa yaay tey waaye ñi may xaar ñoo yëmbagul damay xaar ba soo ma ñëw sa yaay mun ma waa baax na boo ñëwee sama yaay dinañu ko waxtaane lu ci gën a rafet dinañu ko def doo ci am dara lu dinaa ko yor li war ci moom dinaa ko def ci moom te bu wëssinee dinaa ko takk dinaa ko jël sama soxna ma ne ko waaye nag dem na de daw na de. te daw bi mu daw mun naa mën ko sa responsabilité la nekk ndax li ko tax a daw yàq ko de mu ne ma ah alxames laa ko gëj a gis de nañ koy wax mu leer alxames laa ko gëj a gis moom sëñ bi wax ko ah alxames nga a gis nga a gis man loolu dara leeru ma parce que nee ñu ñi ko jël si fii leen jógee en tout cas dem na daal sa responsable la woon kenn waxu moo ko wool woon dañ ma ne rek xale yi fi woosee fi leen jógee foofu lañ jóge ci yoon raay bi lañ jaar. continuer di wër continuer di wër di wër di wër di wër di wër ba 4 heures ma xalé yi ma andal ñu may wër la man leen dem leen ngeen teddi fu guddina xana dafa dem kër papa ma tedd bu ma teddé rek tout rek mel dañ may bama x bu ma tégué sama bop bi ni rek mel dama mu fété ginaal bama max ma ne tëre daan ne yaay na man ko billahi sama yaram bi li mu yëg du jamm ci sama dom je xadi musul fanan an sama yaram waa ngi daw rek yaay sama yaram xadi Moustapha na naan ba asamaan set ba asamaan setee ma jóg fajar te suma dem kër yaayam di ko laajte yaayam mun ma nekk fi de ma ne ko nañ dem kër papa ñu ànd dem kër am ma ne ko caan mu ne ma ne ko nattu damaa dal ci xadi mu ne mbal nattu ma ne ko doomi sëñ saafar Fall laa tëddee xadi ba mu jëlee ci am mu yuuxu di wellu wellu ci mbedd ma ne ko caan du mun nañ ko jënt mu ma kaso laa ko yob man polis ko d'accord na waaye bu ñu dem police mu na man ko man may dem man ñu yor sama do may dem de sama certificat médical mais lo gis rek duñ ko wax ci bedd mi na ngal ŋàll ñu wër suñu ko xadna ma tan ma nan dem ko sëñ Moussa Fall ma gis xalé bu goor fi man ko nan dem ñu and dem yo ma la ci turu yaayam entraîne ma wax ko li ma la wax lepp tan ne ko dama koy tej yaaji dar gi mingi na koy suturaal ma doom suturaal leen ma dama nekk ci kër gu mag këru jaboot laa nekk suturaal leen ma këru kilifa te li muy nekk nekk nekk nekk gone kilifa la bu dee moo ko def bu bàyyi mu yeewoo mu yeewu dina ma ci wax lu leer te xam ne boobaa duma ci bañ dara ma ne ko boo nee bu dee moo ko def dama koy porte plainte ndax moom nangu na moo ko def ba yónnee ne ma ñaari junni jox na xale ñaari junni na jox leen ko yaayam yóbbu ko ci hôpital kon bu fekkee yow lu nga nar a bañ loo man dama koy porter plainte yaayam na ma duma ko bañ loo yàlla tere yàlla bu ma ko def duma ko mës sa bañ loo waaye suturaal leen ma rek te yàlla rek tax dem leen ba bàyyam yow bàyyam yow waxtaan ak moom ma daal di ñibbisee moo ñëw toog sama kër jéeg ba ci yàgg dégg ñu ne xadda ah, rey nañ maa ci miir doon sama xale yi woo ma ni ñoom ñëpp dem nañu ba gis sama doom ji dee ci anam bu metti o nu ko reyee ñu rey sama doom ji ci anam bu metti te sama doom ji ragal bu ma waxee moom wax ju dëgër sax mu daw raxal laxasuma ndax ragal amul fit jàng alxuraan sama doom ji yiw ci boppam kol ga boppam ma nga ca moom ba tey kol ga lañ ko yóbbuwaale àllaaxira loolu la am ci sama doom ji. Adi Diouf ñeent la. ma won ma créé sama dom ji yon topal ma rek ba xam créé sama dom ji waa dal mu ci lox yon ndax yon nga def liggéeyam ci mom da yon la bëgg mu defal ma li ci war ba ma xam créé sama dom xaw nak ku ko ray mu ma ne kenn ko ray parce que fekkuma bu kenn ray mais yon defal ma ba xam créé sama dom xana rek ku ray ñu ray la rek ndax ñu am jam ndax nak son nan trop son nan trop sama dom ji man dayam dénk ma yakaron ci lu ne ñu ray ko ci anam bu metti biñ ko ray wax deug yalla man buñ ma rayon sax wala ñu ray sama dom duma metti métti mais yar dafa for te xale bi xamul ko du man xale bi ay mbokam buñ ko sax bëgg ko jël mu leen sama yaay rek laxasuma rek sama dom ji laxasuma rek bëgg ma sama xol sama aduna yaquna na te xamna buma doon yalla sama dom ji duma raw ma doon yàlla sama doom ci dugg suuf mukk ma teg ma may dox ci àdduna ndax fi ne defatuma dara ci àdduna defatuma dara ci àdduna sama déedéet sama am naa doom mais moo ma gënal ci lu sama rakk ko jur sama rakk may ma ko sama rakk ko jur may ma ko sama rakk ko jur ma ko mu gënal ma lu doom ji ma sukk naaj ci kawam xale ju fa ma ko gënal xale ju samay bët mooy sama lépp sama doom ji ñu boom ko Mm-hmm. <laughs>